ba pare léegi yéen seen doole gi ngeen jël yéen ki ngeen yéen da ngeen koy protéger léegi yéen da ngeen war a xeex Sénégal warta am trafic movement moo warta am senegal fépp ngeen war a paralyse loolu mooy xeex Sénégal moo war a paralyse completely mais yéen a ngi foofu noonu Sénégal fépp mais gis ngeen doole Casamance mais loolu tax. ñi naan bateau du doo avion doo xanaa gisoo leen the sign of power signe pouvoir bi power bi ñoom ñu ngi koy appliquer di leen ko won yéen ba tey génnoo leen message bi because signe power moo tax mu naan Casamance bon bateau parce que déjà ñoom tiit nañu ne bateau yi avion bi kii waa Casamance dañ ñëw non Casamance duñ ñëw because Casamance moom moom Sénégal Casamance moom moom Dakar Casamance moom moom Saint-Louis Casamance moom moom fépp ngay wax quatorze ré excuse me quatorze régions yëpp donc waa Casamance soxla ñu ñëw dañuy gérer Casamance Yen mi nek nor. ngeen gérer nor. Jaru dem naan da dem lever lam. ñoom ñi fa nekk ñooy sen seen bopp laa leen wax néew ma leen loolu atee bu jógee pour def liggéeyam there's no time. fi ngeen war a focus mooy Sénégal moo warta am mouvement moo warta am Sénégal mouvemental mais mouvement mi ngi am Sénégal yéen fa di préparer ay fetu naar di dem ñi leen indil ndaxte seen jigéen yi dem nañu kattante porte à porte yi ba gàddu ay lépp liñ indi leen tegaleen ay xar ne ñu ngi leen di may hijack bi ne naa leen is always risk hijack suukar religious ba tey parce que seen jigéen ñoom ay Diallo seen clip boobu dem nañu ravitaayoo dem nañu lekki day naar yi guux def lépp indi na leen nag ñëw tegal leen ay xarang ni et benn affaire doo leen laajte doo leen poser question ñii dañoo ñëw da tegale ne leen am leen mu ngi nii where that money come from ak ah, ko jëlee ban compagnie ban factory ban usine ban kii la jëlee seen xaalis all li ngeen def moo yàkkamte yàppang nii am ngeen happy because da ngeen di ñëw rey pour lekk yàpp without asking question lan moo tax loolu yëpp li yëpp di am côté nord lan moo tax loolu yëpp am Casamance can you guys ask question why is easy pour bloquer pour pour jënd nit ñi nootaan why is not easy the people of Casamance lépp luy dugg Casamance is not proper setul is burned by the spirit of Casamance ñi ngi ñëw de dañuy day gis toog nekk ci télé nekk ci euh, écran foo ko fekk ñi xeesal ba weextaan di utiliser filtre sol yëre parfume ñeneen na ngi nii sénégalais ngeen di focus waa kii rafet na de kii jekk na ay eh waay kii lu mu sol not challenging seen mind pour laajte kii lu muy def kii foo ko fekk mu ngi solli yow ñoom clip ñoom Aïda Diallo googu di di dem up and down open daan di toppante di jouer seen propagande diw may na diw 500 millions diw may na diw 200 millions diw indi na biif kee 200 from where who does that kan mooy liggéey su baax ngoon rey boppam ak àdduna gi ñëw jël benn biif xaalis jox ko jigéen bu mel ni yaayam moom ndeyam jur ko kële kële defu ko dara amulal ko benn njëriñ mu gàddu biif kees ne maa ko meek te jox ko ndeyam duul yooyu kan lañu mën a nax xanaa ñi nga xamante dañoo tokkaar ne ñoom yéen doo leen posé question lii di ñëw ni buñ ne tegaleen camion soble kii naan soble bi dina bëri de jonj bi tufe bi ak yooyu tegaleen camion pombiteer ngeen di ngeen di tàgg pombiteer yi ay macaroni ay VMC ngeen di rey seen bopp that's what I'm na about yéen seen dëkk moo tax nit ñi ah, gis naa ay groupe ñooñu ay jeunes Touba. dekk bo ngeen ni ay dekk xam ba lan la fa démé ba ñew difa jënd ay jaar hello 300000 ñom ñoko wax ah dugg seen audio yi seen vidéo yi ku nekk di kaas di wax jaam ñew dekk bi ñu naan Touba difa jënd ay jaam when that happen loolu kañ nako because man am confused man sama yon new ci affaire seen Touba ay mbacke mbacke ay I don't give a fuck about that period But su understand the same communication of language da are ne dëkk boobu ay mbàkke mbàkke ay lii man am I am totally confused ay prince ne ba dama xam ne in real life a kingdom of royalty kenn du jënd foofu I am confused because I am a princess a crown princess of my first father so ñun kenn du ñëw suñu kingdom di jënd ay prince for trois cent so yéen boo leen jógee naan dëkk is this a is a propaganda is a liar. ci royaume bi nga xamante am nañ fa seen xu whatever it is seen buur I don't know ndax am nañ fa ay ren I don't know because all these women i am seen ñi fay jógee ñoom ñëpp ñoom ñooy dem guuxi day yi fële ca naar yi ñooy porte à porte indi bif kees yi foofu for sure léegi nag man seen góor yi xaw ma nañu ne ñii naan ay suukar ay mbàkke mbàkke pare foofu la ñuy dem di jënd ay nit 300000 dem daa i am na lu fa làkkatu loo xam ne nit ñi xam ñu go. but man I know it from day one I have no respect for that place forget about that man no aw ma respect any all these religious things propaganda killing and sucking blood terrorizing people make people work to give you without you working dem nit ñi di liggéey di la jox te yow ko gëm I have no respect for that man I am a going to the people not to the crown man my maay They di support the people of my kingdom di make sure my people are safe make sure my people eat how can I be a queen when my people are suffering when my youth are getting killed how can I be that queen nan laay mu nee queen ba nga xamante ne sama jeunesse ñu ngi ni rey ñu ngi souffrir lekk ñu how can I carry my crown comfortably I am a queen of a people's heart, not to the crown. So dëkk boobu there's something li nga xam and is exposing day and night ñoom seen bopp ñoo koy waxante seen biir because gis nga nit ki li ngay wax lu ne moo tax ne nit di nga dëkk sa dëkk nga génn di wax mais sa wax buñ ko dégloo dafa am lu bari man lu may jox am na ñu dul comprendre na wax ci biir wax man I am a daughter of spiritual damay déglu the rhythm of the spirit language donc yéen lay ñëwaat di expliquer nit ñi la ñuy def seen dëkk boobu ngeen jël believe make people believe xale yi gëm ne there is a something else waaye come to find out am na lu nekkoon undercover yéen a ko déloger ngeen ngeen ngeen serve ko nit ñi ah we take it from there am na lu bëri nag lu des because I am here man pour settle pour leeral sama famille bi sama njaboot kenn du leen teg blind lépp lu làkkatoon day génn I am the child for it te man maay the use for it lépp lu làkkutoon ci senegal they will be exposed day génn day feeñ donc da ngeen di wàññi ngeen gis ngeen kontaan toog di te doo leen laajte where is come from dañuy toog ñu naan jamaat de dafa jamaat lu mu compliqué loo ko me dee laajte of course yéen seen bopp waa noor da ngeen koy dee wax because ñun duñu lekk lu nga xamante ne is bu sit xam nga li ñu naan bu sita siti siti mooy li nga xamante ni is abomination xam ñu fu mu jógee nga ñëw jox ñu ko bu buñ ko jëlee utiliser pour indi ñu ay conseil te ñun ay doom ñii ñii lañ ay doom karañ lañ ay doom bois sacré lañ nga indi li nga indi jox ñu pare xam ni fu mu jógee nga diin ñu ñun jamaat da koy éviter mais noor rek ngay indi loo indi baax na loo indi na dugg loo indi rek jëlal moo tax ngeen neex a xaaja ngeen neex a jàpp gis naa sama benn doom bu tàppeen fii ne carrément dañu ne ah Dakar dañ fa def seen affaire de sukkal sëriñ yooyu ngeen gëm des notti dama ne la may ci leneen dara mënu téye kenn c'est que da a gëm loolu affaire de sëriñ is psychologique bi da ngeen ko gëm def ko seen ba parce que yes Sénégal sëriñ yi nekk ci indi képp a tukki si ñëw toog seen parce que ñoom daañu nekk loolu la leen jëwee ñu ne sénégalais wax sëriñ bu baax nga mu daw si. dañ ko de gaay yeneen dëkk sa dañ ko de defee ay sketch ay théâtre di moquer sénégalais ngir gëm sëriñ gi ngeen gëm parce que da ngeen toog ngeen naan da ngeen gëm atémit yéen ay doo à pare seen fokk sip sëriñ sëriñ bi lu mu lay wax loolu mais bu lay atémit waxee lii non même bu fekkee de voice ne la bu de voice nga xamante ne is transferred by our ancestors from the universe bu leen di wax carrément da like bu leen di open seen eye bu leen wax da like bu leen wax ay message doo leen ko déglu gum doo leen ko gëm mais as long as sëriñ bi wax na leen nee na na na juróom-ñaari nen nee na nen ginaar gi fii def ko li daw ngeen ngeen fàtte there is a message come from the universe to our ancestors transfer to someone who's gonna tell you what's what No doo leen ci focus. so dañu leen xaajak connecté leen ci ay affaire de sëriñ foofu ngeen ci rey seen bopp moo tax lu tuuti ñu ne wa sëriñ bi nii moo tax ñoom tamit ñoom. màcc ba dañ ko gëm ñoom un demi doog di ñoo li ñu jot a sarax yi depuis bu ñu toggee ci nguur gi est-ce que ñoom seen sarax yooyu dafa dafa am bénéfice dafa am réussite seen sarax yi ñu doon ak seen sacrifice ñoom bu doon réussir est-ce que tey yéen di ngeen dominer ba dese leen 4 mois pour dem toggi seen seen est-ce que di ngeen gagné yooyu foofu ngeen war a calculer xool donc ngeen xam ne yéen a yor pouvoir bi without sëriñ without saraxe is being confident yourself nga gëm sa bopp stay positive ngeen maintain seen fight Sarah, ay yeneen yeneen taxul ngeen gañe sen xeex yeen bàyyi leen ñoom ñi féete ci sacrifice sen yi bon yooyu yéen ngeen focus to you know come together mindset together combine the possibility a positive together ngeen take a move loolu kese ngeen soxla maa leen koy wax depuis seen xeex seen pouvoir yéen a ko téye seen loxo ba ngeen commencé joxe sen on souhait ba ngeen commencé di cotiser di protéger seen di protéger seen xeex ci ngeen fab bunt yépp yi war na dugg si pour yàq dangeen a gagné victorieusement ci seen own blood seen own sweat seen own positive mind seen own spirit ngeen gagné amul keneen ku nekk awdee ko xamante ne am na buntu yéen ba ngeen bàyyi bu mu war a dugg amul dangeen a bloqué kat doo yépp sama njaboot bi saraxoo rey nit ñu saraxee suul nag wadee ba suul yéen affaire yi bizarre ngeen woo jël ay animaux yi yi dund ngeen naan suul bàyyi leen ñu féetee foofu animal bu ñu fat suul ko dundaa vivant noonu la ñu suulee ñoom seen esprit vivant ak seen nole seen vision tamit xanaa xooloo leen gisoo leen ban pexeem la ñu réussir seen pexe yëpp dañoo feelentu dañoo daan comme because ñoom li ñuy def moo leen di diñ concerné wu leen xanaa man duma duma ñu du ma jóg taxaw di sacrifice everything to follow you protéger leen di leen gunge ci xeex bi ah oui dinaa leen wax li nga xamante das is not li boole ko déggee du leen neex these people when you dalee saraxe is going back to them daf leen di ni te pare reyagu leen yëpp the next step when the universe is taking his real move seetaan leen atee nit bu bi bu ñëwee pour joxe nag di di di real one parce que mi ngi move de mais lii just a greeting a token léegi nag the last move bu atémique bii ñëw yéen seen bopp di ngeen toog yéen naat seen loxo di leen di yërëm yéenee toog naa ñi da leen di yërëm it is time ngeen focus it is time ngeen take a move paralyse Sénégal seen xeex mën ngeen ko orienté fépp amul seulement focus et eh, da namm pro yes da ngeen namm yéen seen njiit seen président bu ngeen xam ne atem bi moo leen ko jox pare ngeen yéen ko of course mais time for moom mu tekk bi yéen ngeen tekk action parce que tey bu génnoon tey di di di wax yéen ñëpp bàyyi ngeen ngeen topp ngeen fàtte am na fu ngeen war a xeex these people are lose already they are already lost Macky Sall already lost big time ba mu demee naan Casamance yëpp les problème moom la the whole Casamance ah. fan la leen joxee awee doole bi nga xamante war ngeen ne ni guys go ahead and finish it bàyyi leen ñun waa Casamance we will handle our own problem def nañ ko 40 ans four decades Macky Sall is a piece of cake tey maa ngi gis sama benn njaboot gis nga homme de tenue bii ma partage vidéo ñun ñëpp xam nañu buñ ko déggutul xamal ne buñ ko reyul may def nañ ko ci jeel fi ñuy teg om de yi waaye am na lu ma bëgg ngeen xam ci gis ngeen kii nu mu fippoo ñi vidéo ko mu wax li muy wax pour day actuellement vidéo bi signe la dafay signal ne moom def na lii il faut mu génne lu nekk ci xolam góom boo bëgg ko nekkaale il faut mu génne lu nekk ci xolam wax dafa jaay bakkanam kii dafa jaay bakkanam bu dee dañ koy rey ñu rey ko mais du demaale ak dëgg bi mu benn ci xolam ak lu mu xam ba dañ koy dàq ñu dàq ko ba dañ koy tëj ci kaso policier gendarme yi dañ ko tëj mais moom lu mu war a wax ba pare léegi moom am na seede bii si dafa sumaat dafa sumaat moom déjà créé na keesam léegi état bi lu mu ko def lu ne lii mooy keesam donc sama njaboot vidéo kii bu dee xam ngeen turam jël leen ko ngeen joxe ko Juan Branco pour ces yi tamit en in the meantime na ngeen téye vidéo mu nekk weakness kii dafa def testimony seede la ut mu wax dëggam parce que dafa gis ay moromam yi nga xam wax na wax bi nag ci biir wax déggu leen mbaa mu wax nee na soo waxee ñi rey la wala tëdd la dafay joxe message te message bi waxoon naa leen ko dafa am ay policier ak gendarme yu bari yaa xam olof nga jamaat nga loo munti doon ña nga ca kaso gendarme yi ak policier yi parce que bëgguñu bokk ci terroriste homme de tenue parce que ñoom bi ñuy sol tenue du lii lañ ko solee dañ ko sol pour Sénégal donc bu accepté ñu kenn utiliser leen comme bouc émissaire pour dox liggéey bu salte ñeneen yi rey na leen ñeneen ñi ñu ngi leen tëj ci kaso policier ñeneen yi kenn xamul fu leen dugal donc ñi naan seen jabar yi mission lañuy ñu dem yàgg naa leen ko wax.

déet waaye dem jëli ay terroriste tëb xoolal di jël ay xaalis di may ay nit pour ñu dëkk fen ay 300000 jël ay tëg di leen fay ay 1 mi jënd leen ay oto yu baax dëkkaloo leen fu baax homme de tenue ñi leen jox 80000 70000 ba pare ndeysaan seen jabar yi ñoo gën a jabar yi ñooy ñooy téye seen de jen jabari yi ñooy def lépp ngir rek bëgg seen jëkkër sol nañ tenue mais jabari yi ñooy liggéey ñooy indi dem jaayi dem def lu ne pour mottali sen dépense yi ak dund nekk ak seen jëkkër tey Macky Sall ñoo ngi la jàpp tey ñu tëj leen Moussa Fall ñoo ngi tëj leen ci ay kaso ñeneen ñi mu teg leen par ne seen jabar ñi dañu dem mission ñeneen ñu rey leen. donc kii message bu am doole la joxe dafa jaay bakkanam lu ci am parce que xam na su génnul wax ñeneen ñu noppi tamit ñoom tam ñu ngi leen rey moo tax Martin Luther King dafa ne bu dara amee te waxoo bés boo noppee ci fi nga war a waxee te waxoo mooy rey nga sa bopp donc lii moo nekk di am Sénégal ci côté homme de tenue policiers yi ak am na ñoo xamante ni noppi seen noppi rey na leen seen bañ wax tëjlu na leen kii nag dafa sécuriser boppam futur pour en bu dara amee ay doom dañu ne papam de lii la wax lii moo tax ñu doom yi moom dafa dafa doomam yi ñu am ngor bu ñu doon jaam dafa dafa doomam yi ñu xam ne carrément deuxième maata waat dëgg rek nañu dee ci dëgg donc seen pap ah lu mu bon bon bu dee nañ ko bàyyi mu dund ah ni nga ko mënta def vidéo bii dina seet ay doomam xamal leen carrément vidéo bi héritage bu mag la xamal ay doomam ne seen papa nitu dëgg la te nii ngeen topp ba pare doomam bi préparé génération bii ñëw ci yeneen génération siècle dañuy moom doomam bi dinañu bokk ay révolutionnaire yoo xamante ne ay révolutionnaire yu mag yoo xam ne dañuy porté seen dëkk gis ngeen nit nii lay defaree ay doomam donc xaru gu nekk ci population bi di rey seen bopp ne seen dëkk. noonu la yeneen homme de tenue yi di ree seen bopp ne seen dëkk donc yenn ngeen toog waru leen yéen population bi ngeen toog waru leen yéen sama yuut Sénégal moo war a paralyse léegi homme de tenue yi ñi ngi sacrifice seen bopp di génn kii nu mu génne nii am na ñeneen ñeneen ñi ngi ñëw pour génn parce que guerre bi dafa dem ba élargir parce que dëgg rek dëgg bouchon la tant que génn nga déclenché mun a génn sa bopp doo mun a toog tranquille donc xeex bii yéen mii yuut bi ngeen toog is catastrophe donc Sénégal moo warta am mouvement xeex dafa jot jigéen ñi seen bopp ñooy war a génn takk nee naa la xeex fépp a war a paralyse donc homme de tenue bii wax na ngeen ko bàyyi xel ba pare gent vidéo bi ñiy xool nag lan mooy ñoo ñu seen move terroriste leader yooyu terroriste gouvernement boobu léegi lan mooy seen idea lan mooy seen agenda ci pauvre homme de tenue bi génn express dëggoom exprès bi nekk ci xolam man ne jëluñu ko moom demul sol toni pour mu liggéey bii soo léegi na ngeen ko bàyyi xel ñu xool what's their next move soit buñ ko deful dara parce que nit ñi xam nañu lu xew ba pare dañuy jéem a retiré wu duñ ko def dara soit duñ ko bëgg nañ ko rey duñ ko rey dinañ ko ràjjee du yeneen see xamante nit ñi dañ cee xam sax duñ ko nangoo def actuellement mais dinañ ko toroxal ci seen côté. dina am daal luñ ko war parce que duñ ko mën a muñ parce que kii def leen a won kaar dafa wane kaar dafa jox jox dafa jox sa courage yeneen homme de tenue fa nekk par nakkatu bañ a wax daf leen may courage pour ñu wax is a message ah message bi am na doole donc déjà buñ ko laale the wool will know kii lu mu wax a tax suñ ko ràjjee aton day xam kii lu mu wax a tax lépp luñ ko def actuellement dañu xam day nag nañu ëtt fuñ ko war a sonalee ñoom ñoo xam bal la baat ak lu ñu mënta muuf dañu ñu ngoon seen baay di ko bàyyi xel di sama jàmbaar bi sama doom ji bravo toni bi bu nga koy sol da nga honoré sa ndey ak sa baay nga honoré ancien combattant ya soloon toni bi donc yow nga dee héros moo la gënal ko nga dee as slave man ay have respect for you yaa capitaine Touré amoo leen morom ak ñeneen homme de toni lii mooy liggéeyam dinaan mbeeraa sama njaboot bi nee na ku jangaa ku jamaata ku yegaa ji yeññam fi ma fay rek nii ku yegaa ku sangaa ko kapanakati ba sangam jigin ya jak ka gi wateri ndin kasamas ukano sandu rokoli wul ko sanu wul ko kre kam ko boli atemi tapoyo atemi salinga